feex ji sëriñ bi bëggal boppam digganteem ak boromam. te lu mu bëgg boromam def te lu mu bëgg boromam def ko. lenn ci seen doxin wi. lenn ci suñu doxin wi. day lenn ci lu mu mënta ñàkk. day lenn ci li mu mënta ñàkk. moo am suñu borom defal ko ko moo tax mu am suñu borom defal ko ko ni mu ko bëggee. ngeen yëg loolu. nañ loolu. Ah, am ngeen lu rëy. am nañ lu rëy. lu lu jafe. lu xawut a mën a am. lu xawut mën a am sax. loolu la. lu xawut a mën a am. lu xawut mën a am. kon ginnaaw am ngeen ko nag. ginnaaw am nañ ko nag. yoon waa ngoog dama leen ko waxee woon rek. ne na mu nu ko waxee woon rek. ku ne ci yéen. kenn ku ne ci nun na bëtam rek tegu ci sëriñ bi. na bëtam rek tege ci sëriñ bi. mu fi gis ci diggante bi leneen. bu mu fi gis ci diggante bi leneen. noonu dong la nag. noonu dong la nag. ah lu diis la. lu diis la. lu rëy la. lu jafe la lu waaye yàlla suñu borom mu yombal mu yomb. waaye yàlla suñu borom lu mu yombal mu yomb. yombal ko. kon yombal ko. moo tax ngeen sóobu sóobu yoon wii ngeen aw. moo tax ñu sóobu yoon wii nu aw. di ko di ko di ko jéem a doxee nii ñu koy doxee. di ko jéem doxee nii ñu koy doxee. waaye nag na jëm kanam na jëm kanam rek. nee na waaye nag na jëm kanam rek. kanam rek jërëjëf kanam rek. <laughs> dara bu ci dara soppeeku. amul taxaw amul taxaw. amul geesoo amul geesoo. waaye loolu lépp nag. waaye loolu lépp nag. day dellu si sago. day dellu si sago. foog ngeen am sago. foog ñu am sago. ndax ñëpp ngeen àndal. ndax ngeen àndal. ndax ñëpp lañ àndal gaa yàllaa ngi ci. gaa yàllaa ngi ci. ngi ci. lu nekk ngi ci. lu nekk ngi ñu farloo ngi ci. ñu sàgg na ngi ci. lépp ngi ci biir lépp ci biir. te il ngeen dox. te faw nu dox. te gaa yi a ngi digg gaa yi. te ñu ngi ci digg gaa yi. te digg digg digg gàllankoor yi. te digg kon faw ñu dox. nañ xam bopp suñu bopp. <laughs> jërëjëf. yàlla yombal mu yomb waaye yi ngeen doxinu yombul lu yàlla yombal mu yomb waaye doxin wi yombul. waaye yéen nag. waaye nun nag lu ngeen lu nu weesu rek. xeeb leen ko ci li ngeen nañ ko xeeb ci liñ jëm. noonu rek.